Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance en nous et merci de vous à liker, merci de vous abonner merci également di bàyyi seen i commentaires un plaisir renouvelé les gars yi chaque fois di partager ak yéen information yi mbokki Sénégal yi fépp foo 14 régions du Sénégal àdduna wërngal këpp ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci lal hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñooy wér ak jàmm ñu nekk ci kaso yi nga xam également erreur judiciaire jén leen ñu defu mu leen fa yëpp suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xale leen àjjana fi daw si gars yi ñu on avance ensemble dans la magie de e-sport TV actualité en continu Wa diaspora bi yëpp àdduna wërngal këpp ak gox goxaat ba la nekk ñu ngi di jaajëfal actualité bi nag gars yi dañuy waxtaane ki nga xam ne Ahmadou Bamba Nice Nak pour defal ko deuxième visite médicale am dañoo def lan dañ ko daal di yóbbu fi nga xam ne nag yi mooy donc ci ben médecin anglais loolu nañ ci waxtaan wax Idrissa Gana Gueye numéro bi muy solo ak aussi ambition du côté donc de Everton d'abord abord gars yi équipe nationale du Sénégal ñi ko gisagul jaxaran mi ngi nii ah maillot baa ngi nii ngeen gis ko en image gis ngeen ko li ci digg bi nag donc SN SEN lañ ci def muy Sénégal maillot bi daal Puma defar li nga xam mooy équipe nationale du Sénégal bi mooy seen deuxième moi bi nga xam ne moom lañ fas yéene ci euh, coupe du euh, monde bi ki nga xam également donc mooy donc président Fekafout en hein, fédération de football hein, bu euh, Cameroun di Samuel Eto'o Fils moom nee na dafa bëgg li nga xam ne mooy donc euh, mandat président fédération bi jóge ci 4 ans dem ci 7 ans loolu nag gars yi ne fi mu nii moom daal euh, li muy def ànduñu ci benn yoon ci yenn ci ay partisans. ki nga xam ne également aussi mooy Christopher Nkunku moom nag ah, dañ ko laaj ngeen mooy joueur de rêve mu ne moom bu sañoon day am talent wu Lionel Messi am vitesse Kylian Mbappé am également nombre de buts wala bokk ah, li nga xam ne mooy euh, lii di attitude buteur bi nga xam ne euh, Messi am na ko wala bokk Cristiano Ronaldo loolu daal la jàpp ne mooy joueur de rêve am ki nga xam ne nag mooy donc William Carvalho moom nag signé na du côté du Betis ah, dafa prolongé ba 2026 kii di William euh, Carvalho nekk également ci cadre yi foofu noonu du côté donc du Real Betis Séville ki nga xam ne également moom ngeen di gis nii ah donc di Batshuayi Batshuayi donc jóge na fa nga xam ne mooy donc euh, Chelsea dañ ko daal di abal ñi nga xam ne mooy Fenerbahçe moom ba dernières heures yi dañ doon wax naan du côté de Nottingham Forest lay dem mais finalement. du côté donc de la Turquie le monsieur Batshuayi daal nous une gamme Forest également mon nekk club bi nga xamné gaay dafa battre record 21 recrues manam ñaar fukk ak ben joueur lañu recruter ci ben année bokku na ci li nga xamné nak moy ki di Moussa Niakhaté ak également ki di Cheikhou Kouyaté ci ben mercato ben wèr gaay wa à deux à deux mois ñoom ñu dañ ci recruter ñoo ñep li nga xam nak moy club bi nga xam mo ëpp lu mu dépensé fofu doon ci Premier League ci wote côté Copar gi ci walum recrutement moy Chelsea 278,4 millions Manchester top ci West Ham Tottenham Nottingham Forest Manchester City Newcastle ñu ëpp lu ñu daal di recruter ben parenthèse bi def également mooy les retrouvailles du côté des Blues de Chelsea entre ki nga xam moy Pierre-Emerick Aubameyang ak ki nga xam ne mooy Wesley Fofana Wesley Fofana mi nga xam ne bu leen donc ci Saint-Étienne lañ ko formé moma ah gis ngeen ko ni mu école, ak idolom ndax dafa ne ki moy idolom donc mu ñoom ñaan nañu war a équipe Rennes mercato bi également plus gros transfert yi ci été bi mi ngi ni ha ah. Anthony le donc le brésilien du Ajax ñëw donc fi nga moy donc ci Manchester top ci Wesley Fofana Fofana, Chouamini, Nunez, Casemiro, Isaac, Delirte, Kukurella, Allende, Richard Lisson, gars mercato bi ñu cher le sourire également ci li Eric Ten ah, qui retrouve le sourire parce que moom mercato bu baax la il a su récupérer joueurs yu bëri Ajax Amsterdam la ñu nekkoon mu yoroon leen loolu ah, et en plus d'enchaîner, enchaîner ah victoire ki nga xam Eric. Ten Hag Ajax Amsterdam mën nañ wax ah, Ajax Amsterdam mo battre le gars record ci Walum jaay ils ont vendu gars Boy xol joueurs jaay 7 joueurs yi Manchester euh, United euh, kenn ki Borussia Dortmund ñeneen ñi également Bayern de euh, Munich kenn ki Inter de Milan wa FC Barcelone également gis ngeen leen ah, Rafinha ñom Alonso ñom donc ah Lewandowski ah, comment dirais-je aussi ñom Eric Christensen ñom ñep ñi ngi ci biir hein donc ci li nga xamne moy recrutement yi def Gavi nak Gavi mom il est resté aussi du côté du FC Barcelone parce que aussi bu leen Bayern de Munich dañ ko defal proposition mais Gavi dafa ni leen il préfère toog du côté du FC Barcelone parce que dafa bëgg jouer coupe du monde bi et pour gëna am temps de jeu ndax waru ko ne mu demee Bayern dina am temps de jeu Konrad Lemaire également 18 millions hein yu ak yuñ total toftal le Bayern de Munich ci table bi ngir jaay jënd ko ci ñoo ñi nga xam moy donc RB Leipzig RB Leipzig nak ñom dañ doon laaj 22 millions ñom ñu daal di bañ mais fini nak Lemer Lemaire bu fekkee ba saison bi di jeex intéressé na Bayern il peut partir librement ki ngeen gis également di Wadji Vraiment Wadji attaquant ah, de Karabakh ñëw signé du côté de Saint-Étienne premier entraînement mi ngi ni gars nak ki ah, parce que c'est quelqu'un bon xam man mental la moo le mental de Ibrahima parce que nous avons la nga ñëwaat euh, les bras c'est quelque chose mais aussi lui il a un fort mental muy qui di Ahmadou Bamba Dieng ou Bamba Dengue Dien Bamba on croit en toi Bamba gëm et Bamba comme on dit Bamba FIP Bamba partout Bamba mi nga xam gars donc nous dañoo dañoo yéemu ci motivation Bamba Dieng mi nga même bu fekkee ne testam bi baxul musta bàyyi moo tax ñi nga xam moy ni suñu def dañu dem jëli ben spécialiste bo xamné médecin anglais la ngir mu daal di xol ko mom nak ben cartilage bi nek ci genou gauche bi lañ japp né mo am problème mom nak bu défé test yi bu test yi baxé mën na signé donc nak il faut mu jàkkaarloog médecin anglais bobu non. Angleterre lañu ñu jëm kii di Idrissa Gana Gueye IG donc G comme on dit Idrissa Gana Gueye IGG numéro 27 lay sol mom 17 la doon sol mais 17 bi légui Iwo bi le Nigérien mo koy sol moom mu jël numéro 27 bi ki di Idrissa Gana Gueye Idrissa Gana Gueye mi nga xam nag Franck Lampard dafa def lepp pour mu daal di ñëw il a tout fait pour Idrissa Gana Gueye ñëw Idrissa Gana Gueye aussi néna mom il est plus que motivé parce que néna mom moom ba muy dem euh, war ba mu waree jógee fa nga xam noo ci Paris Saint-Germain dafa ni dirigeant parisien yi man benn club rek la bëgg dem bu fekkee ni mu fi joggé et club bobu du fenn tuddul fi nga xam ne mooy donc fi di Everton néna dara dàqut nga dellu fi nga xam moy sa kër muy fa nga xam moy donc fi euh, ci euh, di Everton gis nañu Idrissa Gana Gueye ah photo boo xam mom ak yeen cadre yi yenn pas yi fa nek fofu noonu di wane Gana aussi est une personne très importante et dañ koy ñaanal Gana nga def saison bu exceptionnel macha allah yow ak joueur international sénégalais yëpp. gars yi nag information yi dañu amoon leen jox lan ban gis-gis ngeen am nag ci li nga xam mooy blessure Ahmadou Bamba Dieng bi nga xam ne nag donc comme on dit médecin anglais la war a gis Idrissa Gana Gueye du côté Everton wéy leen like wéy leen di abonné on avance ensemble jaa ngeen jëf.